total ci l'école yi loolu moo nekk plan d'action bi nga xamante ne CUSEMS moom la déroulé ngir rek ñu exiger jàngalekat ak élèves yi nga xamante ne dañ leen tëj. et dañu bëgg ci ay anam yu gaaw ñu bàyyi collègues yooyu bàyyi élèves yooyu ñu delluwaat seen école jàngi jàmm ni ñooy ci biir école su ñu ko deful nag bu boobaa ñoom ñoo choisir délibérément perturber. année scolaire loolu du intérêt leneen li nga xamante ne CUSEMS e mu ngi koy ñaawlu moo di taxawaay ministre de la fonction publique gannaaw protocole bi nga xamante ne daal nañ ko élaborer ni ki daaw ba léegi. et gannaaw grève bi nga xamante ne defoon nañ ko fi daaw. jëloon nañu ab ndogal ngir rekk ñu mettre ab comité de suivi boobule comité de suivi ñi ko ŋànk tooguñu ñu waxtaan joriñ bi ñu denk fonction publique moo naroon joriñ bu ñu denk wàllu fonction publique moo naroon convoqué waaye gannaaw biñ ko falee ministre ba léegi amul benn contact diggante responsable syndicaux yi l'organisation syndicale bi nag mu ngi dànkaafu nguur gi mu respecte protocole d'accord bi ñu signé diggante responsable syndicaux yi loolu nag su amul danañu gën a wonewaat seen bopp